gannaaw weer ak ay bës bañ ko tabee ci boppu nguurug Sénégal fii ci Thiès askan bi wax nan ni ñu gisee doxelin bi nga xamante ni nguurug Sénégal gu bees gi ñu ngi koy doxalee jamono jii wax nan ci li nga xamante ni mooy cumul de mandat bi wax ci li nga xamante ni mooy appel ak candidature bi ak yeneen i ponk. état dafa am ay réalité yoo xamante ne ni moom la état di doxe fu ne nit mën na bëgg a taxaw sax ni buñ ma falee danaa def lii fekk. buñ ko falee condition yooyu mën a tax mu mën a def loolu fekk réunir agul du ko mën a def yenn yi man na dem assemblée yenn yi mën na doon ay assises mën na doon yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii soo nee danaa def lii mën nañ la wax ni lii mën a goo koo def fekk defoo lii ci fan yi ñu génn président de la république ñëwoon fële ca mburkat ngir saytu doxaleen wafaam kii di Mouride Ndiaye nekk président mouvement M3D wax na ni président na taxaw temb ngir saafara nu mel. rayante ba tabax këram ba dëkk ak ay njabootam nga ñëw daaneel ko ci kanamam mu doon la loolu dana des ci xelam nga gis ñenn ñu nga xam ne xëy na man nañ seen bopp yor ay suuf de partout wëlbatikuwaat am ci loo xamante bi ni amaana ña fa amoon ay kër ñu xaj leen kon man du ma rafetlu benn yoon doxalin boobu maa ngi saluer taxawaay yi nga xamante ne ni le président Bassirou Diomaye Faye def na bu ñenn ñi jàppee nii war na noo saytu liggéey bi nga xamante ni gouvernement bu bees bi mi ngi koy liggéey ñeneen ñi jàpp nañ ni teel na lool. teel na trop pour pour pour joxoñ baaraam seen i doxalin teel na trop parce que si un mois nga bëgg a teg nit ki choc je pense bien que ne c'est impossible parce que Sénégal du du du du du mairie du région du du lii réew la. deful sax deux mois. et que ñu commencé di indi ay préjugés di commencé di def ay ay ay wax yoo xamante ni carrément da leen découragé loo je pense que c'est pas le moment. bës yi nga xamante ni président Bassirou Diomaye jaxaar fay def na ko ci bopp Sénégal fii ci cees ku ci nekk wax nga ci sa xalaat ñi di wax li leen nakari waaye ñeneen it di jox conseil kii di njiit réew mi